nabiyuna muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi ddin ixwat al iman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokk fi daje di njabootu alqur'an di ahlul qur'an ahlullahi wa xaasat ñi ngi leen di nuyu ci tuuru fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal te ka nekk ca bopp ba di Thierno Moustapha Ahmadou Wan ak bokk yi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom di leen jàppale ci mbooleem instance yépp ci seen tur lañ leen di nuyoo di leen ziyaara di ndokkeel suñ bopp waaye di leen ndokkeel ci minbar bi nga xam ne mooy yaakaaru réew mi délégation bi nag rëy na mënunoo tudd ñëpp waaye ràññee nañ ci Serigne Mansour Sy bu Parcelles Serigne Ousmane Ndiaye inspecteur doomu daara jóge ba Diourbel Abdoulahi Jamil Ndaw jóge ba Jaxaw Saloum Euh, ñetti département yi nekk ci région de Louga Linguère Kébémer Louga seen coordonnateur Alxaaji Njaga Mbay mobilisé na ñetti département yëpp ñu ànd ak bokk yi ñu ànd ak yëpp ñëw fii ci bis bi nga xam ne sunu bis la Serigne Cheikh Makhtar Lo say doom ñi ngi lay nuyu waaye say doom ñi ngi lay ziyaara say doom ñi ngi lay ndokkeel kokki mooy fierté doomu daara yépp yi nekk ci réew mi cheikh naa cheikh ahmad saxir loo yal na luñ ko yàlla fayal ndax moom kat ay projet yu réeréeréeréer yu mag moom la fi teg muy projet yuy jëriñ daara waaye li jafe woon jaaxaloon umma islamique bi yépp mooy projet yi nga xam ne Cheikh Ahmed Sakhir loo teg na ko ndax danañ ko mën a réaliser waaye Baye Makhtar Naar Lo fa jazakallahu xayran réaliser nga mbooleem projet yi nga xam ne Cheikh Ahmed Sakhir loo nasoon na ko réaliser nga lépp ba susaat nga yeneen i projet yoo xam ne yépp ngi dem te incha allahu dana yegg thème central bi ñu indi nag tey ren nekk na tem boo xam ne thème bu doy waar la waaye li ma waxoon daaw bu ma fi taxawee rek lay wax Cheikh Ahmed Sakhir Lo yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa dogal mooy xaatimul anbiya wal mursalin yàlla yónni na lu mat 124 mille kenn ku ne indi na loo man wax na loo man def na loo man ñu yaakaaroon ne loola doy na pour kàddug yàlla ak mission bi yegg fa mu war a yegg waaye yàlla def ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo ñëwutoon dara du mat waaye Cheikh Ahmed Sakhir Lo fekk na fi lu jege junniy at mag ñi def fi daara daara di fi def ay résultat yu mag a mag a yu réy réy réy waaye mag ñi dañu wax ne vers les 1937 wala 36 bi Cheikh Ahmed Sakhir Lo ñëw fii sos daara ji bu ñëwutoon la daloon waa ardul Hijaz dina dal Sénégal kon moom moo ñëw mottalil mag ñépp seen yéene ci wàllu daara loolu nag fédération bi mi ngi xamal ne bàyyi Maxtaar Daar Lo ñun mooy sunu baay mooy sunu baayu daara yematul rek moom Maxtaar Naar Lo ci coordonné daara ji nga xam ne tey mooy daara yi mais actuellement daara yi Sénégal yëpp yëpp ñoo ko yitteel bépp daara bu am jafe-jafe boo ñëwee toog fii sëriñ bi dina lijjanti lan mooy jafe-jafe daara jooju tax tiit ko lamb poosam génn xam-xamam génn expérience am jàppale daara jooju yàlla ko yàlla jàppale eh, bugguma guddal benn yóbbante la fédération bii di yóbbante doomu daara yi nee na yéen doomu daara yi na ngeen am fulla na ngeen am fayda ngeen yeewu ndax toll nañ ci ay élection gox goxaan yi maanaam gox bu nekk ña ngay seet la ko war a doxal te gox boo dem muy ab commune la fa nekk ci ay daara kenn xamul nu ñu toll na ngeen fexe ba ku ne bëgg naa nekk maire na ngeen fexe xool programme am bu ca daara amee wàll man koo suqali jëmee ko kanam